asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte sas su ne defal leen vidéo pour ñi xamantene mo bes chaîne ma leen wax welcome bienvenue abonné leen cliquer leen ci cloche bobu ngeen gis vidéo bu ndo ngeen mo ngi salam bu leen faté tam un vidéo c'est très important mbokk internet té tey dañuy ñëw wax ci Bouna sa bi xamantene té yow amati na temps de jeu si sen jamaru ligue des champions lii di Bayern Munich ak ki di euh, Galatasaray si dëkku Galatasaray nemmeeku ñu surtout bi bu bu Icardi penalty yi Panenka bi gis nañ bi bu Musiala it maintenant nak entrée bu suñu génn moy gën a intéressé soixante dix minute di Bouna Sarr donc euh, mu nekk une très bonne nouvelle franchement li motax mu nekk une très bonne nouvelle ñëpp xam nañ ne Sabaly mooy numéro 1 au poste de latéral droit nak euh Aliou c'est nak si conférence de presse bi mujj bi muy joxé liste bi dane bi ñu la motax nga andi Mamadou Sani andi Noah Baye fa Bouna Sarr ma non non Bouna Sarr xam nañu ay qualité gis nañ situation Coupe d'Afrique bi passé yóbbu nañ te xamoon situation bi aussi xam ko mais dama bëgg xool booy yi mais nak mois d' octobre il se peut mën na ñëw tamit kii see mais ni ma gisee Thomas Tuchel maanaam entraîneur bu Bayern di doxalee jamono bi c' comme si day poussé euh, Bouna ça parce que xam na c'est jamais facile dans un groupe am benn jour boo xamante ne di jouer jamais et pourtant tout le temps moo garder le sourire di entraîner di def lépp chaque week-end mu jeexee du jouer coupe bu ñëwee du jouer du xam du jouer mukk xam na ne janvier ñoo ngi si mois de octobre fin octobre la nekk novembre ngi nii bu fa amee ka xam na ne bu fa bu ko amee quelques match maanaam muy dugg deuxième mi-temps di am dix minutes di am cinq minutes Aliou Cissé da koy yóbbu te bu boobaa moom benn day mel ni benn jëm-jëm bu nekkoon si temps benn jour bu xam ne yërëmoon na ko pour mu am temps de jeu xam na ne kii euh, day nekk benn waay boo xamante ne ambiance groupe bi la fekk amul temps de jeu rek voilà c'est un peu compliqué pour Bouna Sarr du coup bu voyager and ak équipe nationale du Sénégal mom mii di euh, Thomas Tuchel dina mën a dal liggéey liggéey moo tax instant di koy may ay 5 minutes ay 10 minutes parce que xam na ne Aliou Cissé soxlawul lu bari ci Bouna Sarr pour mu yóbbu ko parce que avant amu won temps de jeu pourtant yóbbu nañ ko coupe du monde donc bu fek yóbbu nañ ko coupe d'Afrique autant pour moi donc bu fekkee amul temps de jeu man na euh, bu fekkoon amul temps yi mu amul temps de jeu ñu ko don wo donc bu fekkee amna temps de jeu mais man na dem sans problème tax Thomas Tuchel instant politique les jouer il fait le tout et da ko Bouna Sarr aussi tamit entrée du entrée bon dèjà que am match bo xam dougal coupe du joxe na passe décisive faut noter ça donc tey jii mu joxe temps temps de jeu bu conséquent je pense que ni lay continuer fi lek mo fi lek coupe d'Afrique bi donc xaar leen Aliou Cissé woo Bouna Sarr donte nag lu démb maa leen wax ne Aliou Cissé est du jël Krépin Diatta ak sabari yóbbu mais pour moi dans une défense à 4 je préfère quand même Bouna quoi dans une défense à 4 même si Krépin Diatta récemment gis nañu en euh, championnat mu def un grand match contre Metz mais ban Metz Metz bii xam moo jël avant daal donc mënoo ko natt si match boobu xëy na euh, le match contre Cameroun piston le jeu donc j'attends de voir plus man je préfère un bon Sarr bu expérimenté bu xamante ne au cas où que euh, sabali blessé moom mën fi nekk parce que Sabaly instant yi xamuñu ba niveau la ba tey dafa am gaañu gaañu wér na nag instant yi on va voir week-end bi et d'ici d'ici mois de novembre lan la lan la kii di wane suñu gaynde bii di Youssouf sabali pour prétendre xalaat ci moom lan la mën a andi Coupe d'Afrique donc loolu yëpp c'est des c'est des pour man ay paramètres yoo war a xool la balaa ngay jël kii di Bouna en tout cas pour moi, c'est une très bonne nouvelle déjà rek da fekk moo am temps de et je pense que entrée yi muy def tamit du entrée yu bon défensivement dina tàkkale il se donne à fond il retrouve le sourire maanaam moo ngi ree moo ngi kii xam nga donc c'est intéressant donc à lui c'est le fait que mu utilisé wul Noah ak Mamadou Sané peut-être Noah il se dit qu'il n'a pas encore le niveau parce que même dans son club gantoise il ne joue pas maintenant nag pour man koo convoqué rek may ko minutes lu mu dee donc même même bo gisee à l'entraînement des na en club jéewul may ko benn cinq minutes ben 8 minutes mu wane boppam Mamadou Sané mom du yak bu bu continuer incha dans l'avenir mën na équipe nationale du Sénégal donc euh, noowaa lañ mënoon métalise jot ko def temps de si bo mo né nekk dernier match test donc bu né ba tegul foofu noowaa rek ça veut dire que noowaa la niveau selon Aliou c'est des na quoi mais à voir en tout cas bu né ça pour man ni ni ni war na mëna a defar retouram pourquoi pas yéen noo leen xalaatee loolu man si jàngat bi ma am Thomas Tuchel moo nekk di pousser kii di Thomas euh, di pousser kii di Aliou Cissé pour mu convoquer Bouna Sarr fait fekk mu koy jox temps de jeunes yi donc euh, selon vous ban xalaat ngeen ci am man daal jàngat boobu laa si am après seen match Ligue des Champions bu ñu dóor 3-1 mbokk yi li ko vidéo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur football TV. asalaamaaleykum.